nga luñ di wax mhm. il faut nga expliquer ñu partage bi partage des bénéfices waaw gannaaw bu ñu bu ñu delloo waa ji li mu ci investiron ba pare li des ñu war ko séddoo waaw naka lay demee xam nga wax naa leen mhm. ne naa la cinquante deux ñaari contrat yi su ma juumul ak ñett yi sax mhm. kii euh, bu Kayar bi ba selon les parce que kenn mun nañ lii lay doon tranche de production la dañ naan bu ñu produire dix mille. Mm. zéro à dix mille baril lii nga état de am lii la gars yi am. Mm. suñ produire dix mille à trente mille par exemple lii la. Mm-hmm. par tranche la. d' accord fourchette rek la. selon nombre de baril bi génn quoi génn le nombre de pieds cubes de gaz bi génn. d' mm. foofu la ñu kii alors donc loolu li mu ci waroon a yokk parce que information. su koy wax sénégalais dafa baax mu mu àgg moo di. dañ ne production bi ñu ngi koy yaakaar mu commencé décembre deux mille vingt trois kon cinquante six milliards benn at la. benn weer benn weer de production. dañu loolu la waroon a leeral ñëpp. donc donc les cinquante six milliards yi ñuy wax c'est un mois de production seulement. estimé estimé que parce bi nee nañu décembre deux mille vingt trois lañ yaakaar mu commencé produire. d'accord donc bu ñu ko jëlee. soo bëggee xam lu ñu indi dëgg da ngay jël une année entière projection deux mille vingt quatre am na. Mhm. la war a wax. waaye boo ñëwee ni cinquante six milliards lañ. donc ce qui ce qui veut chaque année dafay yokk. waa boo liggéeyee douze mois. ak boo liggéeyee benn weer bokkul. c'est mhm. production un mois lañu yaakaar. d'accord décembre deux mille vingt trois. d'accord te cinquante six milliards. Mhm. attention mën na wàññeeku mën na yokk. Mhm. mën na wàññeeku te par exemple bu ñu doon par exemple un million de bari li ñu produit ci période boobu décembre suñu waxoon loolu dollar. budget bi boo koy def da ngay estimer ni dollar bi période boobu lii la war a jar. Mhm. ñu ni supposons ñu ni dollar quatre vingt dix euh, baril quatre vingt dix dollars lay jar am boo jaree un million kon quatre vingt dix millions dollars lay def waaw su baril bi jaree cent millions nag xam nga kon day yokk. d'accord waaye bu baril bi jaree soixante millions. Mhm. aussi day mhm. wàcc tout question de prévision moo tax ñu def loi initiale dañuy estimer. bu ñu demee ba am revenu ñu def loi rectificative parce que xam nañu exactement. ça Mmh. Et ça, c'est important. Donc, l'information est incomplète. 56 milliards, oui, budgétisés, prévus, mais c'est pour un mois estimé production et non 12 mois. D'accord, voilà. d'accord, c'est très ñu bari aussi bi ngay wax ci contrat yi mooy contrat de concession contrat de partage de de production dafa am ñu ne contrat de voilà dafa am ñu ne nañ choisir l' option contrat de service lan moo tax Sénégal selon yow choisirul option boobu. mais oh, o choisiruñu ko parce que am na sax autorisation de de prospection. c'est-à-dire mun nañu la jox. Hmm. de façon exclusive une période donnée nga def say recherche. Hmm. xool estimer Sénégal di ci gagnant ah, parce que li ma lay wax yëpp recherche boo def. Hmm. donnée boo fi am rapport boo am lépp Sénégal la ko moom da ci am copie mais loolu moo tax. perte am banque de données. Mm -hmm. et c' toujours important ku ñëw bu jógee fii euh, bloc boo ko jëlee ba delloo ko bu sa morom ñëwee. Hmm. day fay fekk connaissance géologique. d' accord bu doy waar boo xam ni société fi jaar yëpp seen rapport hmm. seen i sondage lépp a ngi fi. Hmm. donne yi ñu defoon données sismiques mu nekk 2D ou 3D ak yooyu. ak étude géochimique ak yooyu yëpp. mais loolu Petrosen da koy jaay loolu mooy patrimoine Petrosen moo tax Petrosen euh, am kii la connaissance scientifique. mais c'est des choix politiques ñu jëluñu contrat de kii contrat de partage de production moo gën parce que du ñu risquer dara. Hmm. yow yaay set soo gisul tu perds soo gisee ñu seddoo te hmm. conditions yi ñuy séddoo sécuriser na Sénégal. Hmm. li ma lay wax nii yëpp nag ce n'est li nekk ci contrat yi. waaye waxuma la activité yi. yi pétrole bi développé ci réew mi. dinañ ci wax dinañ ci wax dinañ ci ñëw léegi. parce que nag y a <laughs> uh-huh. ay de sociétés yu fi juddu. boobaak léegi. Mm. amuñu woon donc ña fay liggéey liggéeyuñu fa woon. tout à fait BP boo demee y' a cinquante soixante personnes. Mm. Woodside technique société yu mag yëpp yi def wàllu pétrole am na ñu bureau régional Dakar. Mm. recruter ay sénégalais société sénégalaise yi fi nekk. boo demee port de Dakar laa jël ñuy def logistique ñuy def transport laajal jël ñuy jaay ndox laa jël ñu nekk aéroport yore oto yi laa jël hôtel yi. Mm-hmm. laa jël bâtiment tey bâtiment boo yëkkati Sénégal immeuble yi ngay gis muy bëri nii. mais parce que boo booy teg xeer euh, gars yi ñëw jël appartement yi. Mhm. parce que 3000 à 3500. expert pétrolier ñu ngi leen di xaar ci réew mi. Mhm. dafa am valeur ajoutée. boobu yëpp nag. Mhm. mooy te loolu kenn xaymawu ko waaw société yooyu judd dañuy fay impôt. mais su pétrole nekkul nekkul nekkul duñ foon ñëw. société sénégalaise yi ñu yëkkati daa par la loi sur le contenu local di beneen réforme. nga xam ne pour man moo ëpp doole lépp sax. ndaxte tey jii. ma joxe benn exemple. mu mhm. euh, plateforme pétrolière euh, mi ngi toll ni ñaari terrain football li ñuy gis ci géej gi mu def nii. président bi ñuy def ne. Mhm. boo jëlee ñaari terrain football. dafay tuuti ci dafay tuuti ci photo mais c'est vrai que mhm. la. boo tëjalee noonu. la yaatoo kon yi. nga am deux cent trois cent am na yu gën a mag sax ba cinq cent personnes. d'accord mais deux cent trois cent personnes je pense mooy nekk foofu. c'est projeté pour vingt cinq trente ans. Hmm. pour le moment parce que am na loi bi code bi wax na mun nga def extension di dix ans dix ans ok loolu deux cent trois cent personnes foofu hôtel cinq étoiles luxe la. Hmm. parce que cent vingt kilomètres côte yi la. Hmm. boo fa nekkee liggéey da ngay liggéey rek vingt quatre heures sur vingt quatre. day tourné restaurant bi dafa ubbi. vingt quatre heures sur vingt quatre ñu ngi togg yàpp ñu ngi togg jën. ñu ngi togg nen ñu ngi togg salade ñu ngi naan ndox. et cetera. Hmm. yow ku la joxoon marché ah, marché yow rek. Hmm. sénégalais wuteelu ndox yu ndaw pendant vingt cinq ans foofu ñaata milliers de milliards eh, sunu mbokk yi defar nen. Hmm. bu ñu fa dee jaay am marché boobu ña leen di yónni salaat ñu leen di yónni tomate ña leen di nappali ña leen di jaay yàpp te loolu yëpp président dafa def loi muy contenu local ni lii nii. ci métier yii kenn mënu ko sax jënd produit yooyu ma la wax lu dul Sénégal. te société bu cent pour cent sénégalais moo ko mun def parce que dañ classé service yi ci ñett. Hmm. li nga xam ne régime exclusif la sénégalais mën na ko def. d'accord luy oto. Hmm. kii jarul la kii. donc yooyu dañuy jox droit yi exclusivement à des sénégalais à des sénégalais. d'accord société 100 pour cent. ak sénégalais d'accord am yoo xam ne mënuñu ko parce que lu bees la mosu fee am assistance yenn yi sauvetage machin mën nañ ko lim yu bëri la. Hmm. ñooñu ñu ni joint venture sénégalais. ak étranger. waaye cinquante et un pour cent sénégalais minimum. d' accord c'est-à-dire yow mii tey jii mën nga nekk actionnaire dans une société de service pétrolier. noonu la ñu leen tuddee. Mm-hmm. et kooku ak objectif u transfert technologie. ci biir loi bi de. Mm-hmm. décret d' application ba pare wax sax nombre de personnes yi sénégalais yi ñaata la ñu war a doon ak li nga xam ne nag mënuñu ko defar plateforme mënaguñu ko ñu ni kooku moom. international pour le mmh. moment mmh. encore que sénégalais bu bëgg a wuti partenaire aussi mën nga ko wuti mais mmh. sénégal mënagul def tgv mënagul def avion mënagul def plateforme pétrolière donc loolu mooy loi contenu local pour man géewu pétrole yëpp foofu lu jóge boo demee nigéria ñu dañu bari bëri milliardaire lool la de li tourner autour du pétrole loolu yëpp man de maag yow bu ñu joxoon fourniture tomate ñaari <laughs> plateforme yi wala léegi ñu ñu dem wut fa quinze vingt hectares. embaucher deux cent jeunes on ne fait que ça. wala nen pour pour on est milliardaire wala nen. waaw wala salade maintenant nag. Hmm. c' est le génie de notre secteur privé. Hmm. son audace. d' accord et sa capacité. Hmm. à à innover. moo war a nekk. mais doy doy souvent aussi dañuy dégg tamit ñu bari di wax ni.